bokk internet yu ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi dañ koy tàmbalee nag ak Coumba Gawlo Seck moom nag chaîne YouTube am la ñu daal di piraté loolu nag ba mu ko seetloo moom ak staffam bi rek samedi 11 juillet la ñu daal di euh, nemmeeku loolu ba tax na sax euh, gannaaw ba ñu euh, vérifier rek ci la ñu xam ne dañoo daal di piraté chaîne bi ba tax na données yëpp ya nga xamante ne dafa nekkoon ci chaîne bi yëpp dafa daal di disparaître tax na euh, ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo piraté woon euh, boobu les chaînes dañoo nekkoon di def live en anglais di wax ni ni rek ngir ñu euh, désabonné wu ci chaîne bi ci noonu nag Coumba Gawlo daal na saisir avocat wam di maître Khassimou Touré ngir mu daal di porter contre X bu ñu noppee ci loolu nag dañuy wax ci euh, place Faidherbe euh, foofa ca Saint-Louis daal nañ koy euh, ngéntewaat nag daal di koy tuddee place Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ginnaaw bi nga xamante ni activiste yi yàgg nañ ko xeex yàgg nañoo bëgg ñu soppi tur boobule ginnaaw bi nga xamante ni xam nañ ni sax bu nit ku raciste la woon ñoom nag activiste yooyu noonu la daal nañu am ndam ndax tour bi daal nañ koy changer daal di koy def place Cheikh Ahmadou Bamba ba xaadim rasul dañuy wax nag ci procès Khalifa Sall mi ki nga xamante ni nag moom moo di juge Téliko moom daal dina reconnaître ni que erreur am na moom moom lay nekk président bu union des magistrats du Sénégal Souleymane Téliko moom nag reconnaître na ni que erreur am na ci procès bu Khalifa Sall le nga xamante ni mu ngi ko doon opposé ak ki ñi nga xamante ni ñoom ñoo di état bu Sénégal ba tax na Souleymane Téliko moomule bu woyulee ba tey rek moom moo di droit wu ex maire bi dañ ko daal di violé ci affaire boobu nag cour bu CEDEAO dafa daal di joxe woon benn arrêt ngir solliciter libération bu ancien maire de Dakar boobule di xalifa Sall ndax CEDEAO lu mu gis rek moom moo di seeni ay droit dañ ko daal di euh, violer euh, ci cadre procédure bi nga xamante ne ni euh, dafa daal di aboutir rek ci condamnation à première instance moom nag kàddu yooyu mu ngi ko doon yëkkatee ci rajo ginnaaw bi nga xamante ni moom moo nekkoon seen gan dañuy wax nag ci rappeur bi di Dimy le problème moom nag Dimy problème ñëpp xamee nañ ko ay vidéo yoo xamante ne ni dafa reetaanlu wala ay vidéo yoo xamante ni moom def ci dénoncé li ko metti ba tax na moom Dimy problème si benn interview mu nga xamante ni mu ngi ko doon amal noonu rek dañ ko daal di euh, laaj nag ci li nga xam te ni moom moo di euh, yaayam moom nag dix mille problème loolu daal di koy euh, touché mu commencé di jooy nag kon nag dix mille problème au delà de ses délires nit ko sensible ba tax na moom dix mille problème lu mu daal di xam ne rek moom moo di dafa juddoo géejawaay daa waaye nag mu ngi jàngee alxuraan foofu ca Saint-Louis ci loolu la ba mu paree la daal di ñëw fi nga xamante ni moom moo di Médina waaye nag si benn moment dafa daal di li nga xamante ni moom moo di seen kër euh, moom nag lu mu daal di euh, xamlewaat rek moom moo di yaayam nekk na koo xamante nii dafa daal di euh, participer lu bëri ci li nga xamante nii moom moo di carrière am ba tax na mu ngi ñaanal yaayam nag gudd fan bu ànd ak wér loolu tamit lañ koy ñaanal moom yaayu 10 000 problème moom le bu ñu woon noppee ci loolu nag dañuy wax rek ci génnub àdduna ki nga xamante ni moom moo di maire bu Diass di Alioune Samba Ciss nag daal dina wàññeeku ni ki démb ci dimanche bi tax na ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana ba tax na moom Samba Ciss moomule moom ginnaaw bi nga xamante ni feebar coronavirus bi ba mu ñëwee ngir participer ci li nga xamante ni moom moo di xeex ngir coronavirus bi dafa daal di renoncer woon ci li nga xamante ni moom moo di salaire am bu mu doon am chaque fin du mois loolu nag euh, xibaar yooyu nag euh, waa Sénégal ñoom ñoo ko daal di euh, fësal ba tey dañuy desandi ci li nga xam te ni moom moo di décès rek ak ki nga xam te ni moom moo di maître Madické Niang moom nag dafa daal di publier ci page Facebook am rek ni que dafa daal di am décès ki génn àdduna rek moom moo di soxna Bousso ña nekk rakk ci ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon ancien candidat ci élection présidentielle yi di maître Madické Niang moom nag rakkam boobule moo daal di wàññeeku ñu ko koy jaale bu baax di ko ñaanal tamit rakkam jooju yàlla yërëm ko te xaare ko aljana wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di président de la république ginnaaw bi nga xamante ni euh, dafa daal di euh, génn ci euh, quarantaine am boobule moom dafay daal di dem jàll ji ki nga xamante ni moo di xalifa général di Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour ginnaaw bi nga xamante ni Serigne Pape Malick dafa daal di làkku niki le vingt cinq juin bi ñoo génn boobu nag dafa fekkoon moom président de la république nekkoon ci quarantaine Tiwaawoon ni ki uh, wiken bi uh, waaye nag yemul foofu foofule daal dinañ annoncé waat rek ni que Sall uh, dina dem foofa ca Thiénaba Seck ni ki altine bu ñu dëgmal ngir jaale ji tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo di famille Mame Amary Ndack Seck ginnaaw bi nga xamante ni sax xalifa général boobule di Cheikh Ahmed Tidiane Seck dafa daal di làkku le 26 juin ba tey bu ñu woyalee ci euh, njaal yi nga xamante ne nii Macky Sall war na ko présenté rek euh, moom tamit dafay daal di demaat euh, foofa ca Côte d'Ivoire di nag la ñu wax ni que président de la République dina dem Côte d'Ivoire tamit daal di jaale ji ki nga xamante ne nii moom moo di Alassane Dramane Ouattara ginnaaw bi nga xamante ni premier ministre bi di Amadou Gon Coulibaly moom tamit daal na génn àdduna li ki le 8 juillet bi ñu génn mbokk internet yi cant ngërëm ñeen na leen fii la ñu yem di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci seeneen i xibaar